dikkati naa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 quatre vingt degré ñu taal ko ci fanweer ci simili ba mu doon jël si fóot bi na gis ne xale bi dafa daal di mokk rumbux ci biir machine bi fi mu ne nag seen ëllëg niñ ci loxol procureur ndax boo moytul ñu leen toppee faat bakkante tayuñu ko ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm ci yendoog jàmm réew mi président Macky Sall nee bus Tata ba nga xam ne moom la ñu cocktail molotov barki démboo Ndiaye ca Yaraax bi yeboo ñu xam ne ñu def jëf joojee ñu ngi leen di wër te bu leen tegee loxo bi yeboo ñu xam ne daañ dund luñ mës a dund si ndajem conseil des ministres bi démb la danxaafoo moom président Macky Sall di ñaawlu ne kon jëf jee jëf ni terroriste la ñaawlu na loo nekk te daanaka nit waru koo teg moroomam daan ci dikk si jotaay xibaar waxtaane it ñeenti ci ay minu nañu leen a taal juróom fukk en tout cas fii euh, yi nga xam ne dañ leen caxat caxatee directeur exploitation bu cap trans dana def bilan bi ci bii la jotaayu euh, xibaar assemblée nationale député tey jii dañ leen convoqué tey jii si ngoon la ñuy waxtaanee jëm na ci ñaareelu session extraordinaire bu session année bu année 2023 mu mel ni kon sa session boobee député yi nag daañ gëstu saytu projet de loi bi nga xam ne moo ñeel modification bu code électoral waaye it euh, tàggat yaram suñu équipe nationale jigéen ñi afro basket bi defati nañu ndam ndax na démb ñoom ñoo dóor jàll nañu ci li nga xam ne moo di euh, demi finale yi war a jàkkaarloog Maroc démb Cameroun kon la ñu dóor jeexle bi la jotaay xibaar li yéen i kaay xëy fësal ak Mantoulaye Thioub Ndoye faram-fàcce gi daañu ci ànd ak Simon Faye ak Mamadou Fofana. Thiès naka doo rax nag ña nga xam ne ñoo sooke wala ñoo sànni cocktail molotov ca bus bu yaraax bi bus tata barki dem boo Ndiaye sa yaraax jàppale ne kon daañu leen teg loxo ndax ñu ngi leen di wër te bu ñu leen tegee loxo bu yeboo ñu xam ne dana metti lool ci ñoom si ndajam conseil des ministres ba démb président Macky Sall mooy ni dànk xaafoo gannaaw ba mu ñaaw loolu lu mel nu jëf ji ju jëfinu lenn du jëfinu terroriste gannaaw na ba ñu gisee ne kon ñu ngi leen di jéem a wala ñu ngi jéem a déstabiliser nguur gi ak askan wi di leen jéem a tiital en tout cas moom mu ngay xam ne ne kon nguur gi jël na lépp luy ay matukaay ngir nag wattu kaaraange askan wi ak seen ak moomeel moo xam fu mu ci manti doon fii ci réewum euh, euh, euh, Sénégal ma Faye génn ak njiitu réew moomee sàkku nag euh, dafa emo euh, procureur de la république di sàkku ci askan wi euh, képp ku nga xam ne am nga loo ci fekkee wala loo ci gis rek nga ñëw joxe li nga xam ne mooy xibaar yaa nga ci amee jëm ci conguk minibus bu ay yarax boobee parquet nag ab bataaxal la génne ngir sàkku ci askan wi ñu dugal seen ab loxo ci l'enquête bi ñu di kat ci ànd Cheikh Simon Faye sukkandiku ci ay renseignement ak xibaar yu ay seede joxe fa mbir ma amee muy seede yi ne juróom-ñaari nit yu nëbb seen kanam yor ngànnaay ak i cocktail molotov dugg ci bus bi nangu alalu ñenn ñi laata ñu koy taal te booba nit ñaa ngi ci biir ba léegi bu ñu sukkandikoo ci procureur ne ñaari bakkan rot nañ ci ci biir lakk gi te ñooñee di ay jigéen ak yeneen i juróomi nit ñu ci amee ay gaañu-gaañu te jële ko ci ay lakk-lakk ñaar gën caa méttile enquête bi fi mu tolloo gum day méngale yëf yi ak comme ni ko ministre waxee bi mu demee ca béréb ba muy mbir mu garaaw bu ñu fas yéenewul bàyyi noonu bu ñu sukkandikoo ci parquet bu ndakaaru ndax ne section de recherche bu gendarmerie nationale mu ngay wéy di gëstu di enquête te képp ku ci takkee dinañ lu wër ba gis la jàpp la jébbal la justice ñu àttee la ni ñuy àttee mbirum terrorisme nga xam ne article 279 1 ak yi ci topp ci code pénal bi daan na ko muy sàkku nag ci képp koo xam ne témoin nga te am xibaar ci yëf yi nga jege service su parquet bu ndakaaru ngir ñu mën a identifier def mu askan wi kon fu mu nekk nii dafa mel ni euh, parquet wala sax procureur xamal ne ne kon xeex bi faw ngeen dugal seen loxo. Euh, képp ku ci am xibaar nga dimbali ci kilifa yi ba xëy na yëf yu mën a leer parce que sànq déjà ñu ngi doon wax waxi dut am na ñoo xam ne xëy na gëmuñu trop mbir mi wala foog nañ ne yëfi lu ñu defar la mais li may waxoon rek moom laay waxaat bakkanu doomu aadama kenn du ko fowee donc ku ci mën dara ku yaakaar ne am nga xibaar yoo xam ne boo ko yeggee kilifa yëf surtout nga def ko parce que réew tam bu tolloo fii ku ci nekk moo ci mën a def ku ci nekk moo ci mën a wax ku ci nekk moo ci mën a dox ba yëf yi dalaat parce que ñun dal la ñu xam dal moo ñu jik peut-être dal également moom moo ñuy euh, moom moo ñuy jëmee kanam donc situation yu mel nii saa yu amee procureur dafay def enquête ànd ci ak takk der yi nga xam ne comme cas bi muy section de recherche bu gendarmerie nationale def ci liggéey ba ca war ba ñi nga xam ne ñoom la ñu njortu ne ñoom ñoo ko def ñu mën leen a teg loxo teg leen loxo jébbaleen attekat yi teg loxo jébbaleen attekat yi def ca ñoom la ca yoon wax bu fekkente ne dëgg-dëgg ñoom seen loxo takke na ci parce que il faut le dire une fois de plus ay bakkan ñu ne ñoo ci rot te bakkan yooyee man gëm naa ne mënuñu leen fabriquer donc looloo fi ne par rapport ak peut-être président de la république euh, c'est normal c'est normal mu wax ci parce que kaaraangi dëkk bi quand même mi ngi ci ay loxoom ñun ñii instant bii ni ñuy vivre nii responsabilité am da cee dugg parce que moom moo njiitu réew mi war ñoo garantir kaaraange war ñoo garantir dal war ñoo garantir également lu war a ñëw ci kaw askan wi bu ko mënee fànk ak i service am ak état bi ñu fànk ko bu fekkee ne nag situation am na nii deux am la également yëf yi leer mu fexe également ba lépp la ca war ñu def ko ci mais peut-être euh, yëf yi am na depuis depuis lundi démb conseil des ministres la ci mujjee wax pourquoi pas mënoon na wàcc sur le terrain comme le ministre de l'intérieur bu dee jotam may na ko ko même bu ko jotam mayul sax amaana waroon na mën a def flash foofee parce que léeg-léeg ñu gis ko gis nañ ko fi gisaat ko fi yenn saa day génn biir Ndakaaru doxantu donc pour man mënoon na dem foofee xëy na communication bi c'est vrai que communiquer conseil des ministres c'est institutionnel baax na mais peut-être mu demoon sur le terrain comme ni ko ministre de l'intérieur xëy na ci wàllu communication ak ci wàllu émotion ak charge bi mu war a àndal xëy na moom moom moo doon gën en tout cas amoon na bi man loolu laa gis euh, parce que yenn saa nga gis ay situation am chef de l' état dafay tweeter yem ci benn tweet te tweet ku ko xam euh, c' est un peu laconique Euh, soofantaluma ko mais souvent day manquer un pour institutionnalité en tant que boo ko jàppee chef de l'État président de la République euh, jiite ab état boo xam ne moom moo war a taxaw ci yitte askan wi surtout bu njàkkare amee nii comme situation yi nga xam ne dund nañ ko mais une fois de plus euh, yëf yi am na donc tout le monde a intérêt à ce que yëf yi leer ñi ko doon jéem ña ko santaane ña ko def bu fekkente ne am na sunu intérêt la tey jii Mamba yëf yi leer. ba ñu xam ñan lañu ñu teg leen loxo def ca ñoom la ca war. alors Mamadou Fofana est-ce que tamit askan wi waruñu ko songee mbir mi xeex ko comme nañu xeexee woon mbas mi ndax lépp ñëpp la war a doon buñ demee bàyyi bakken di rot te ku si nekk naan du man kon nag askan wi am nañu aw sas. oui justement je crois le procureur woon na leen ci loolu mu di appel à témoin te. comme ni nga ko waxee sànq aussi bàkkanu ku ci nekk mu ngi ci xottu gerte. lii tey kenn mënatu ko naatable lii tey kenn mënatu ko euh, weddi lu dëgg la loo xam te ne nii euh, et puis ak succession justement li nga xam te ne nii moom mooy événement yi am yu yu yu niroog moom mu di ay bus tata yoo xam ne dañ leen di lakk yooyu donc tax na ku ci nekk ku ne tey daf ci war a dugal loxoom képp ku mu mënti doon boo jàppee ne gis nga ne nit koo xam te ne kii mi ngi jéem a ut ay pexe wala di wala di lal ay pexe yoo xam te ni mi ngi jëm ci jëf yi ni mel nga war ko mën a wala nga war ko mën a peut-être yëgal ñi nga xam ne nii ñoom ñoo gàlloo lu jëm ci wàllum kaaraange gi ci mim donc loolu euh, je crois discours bi foofu nañ ko war a gën a accès il faut mettre le curseur à ce niveau muy appeler et inviter si vous voulez les populations à plus de mobilisation à de vigilance et de collaboration ak ñi nga xam ne nii moom mooy les forces de défense et de sécurité et je crois ensemble buñ ko buñ ko buñ ci ku nekk dugalee loxoom foog naa ne xeex bi ci lay gën a yomb maintenant tey jii nii peut-être bus Tata nañu wax mais nañu bàyyee xel na ne mën na doon ci ay bâtiment recevant du grand public mën na nekk ci ay marché mën na nekk feneen feneen rassemblement justement kon dafa jot ku ci nekk ku ne mu daal di ci xar tànk tubéyam ba tax ne li ni mel quand même ensemble ñu mën ko xeexandoo voilà ñuy euh, fàttali ni kon euh, li yokk ci xar mi karaw moo di ñaari cocktail molotov ya ñu sànni ci benn bus euh, Tata ligne 65 ca Yaraax si fàttali ligne 65 boobee mooy daw Kounoun banlieue ba ak nag Colobane bi ci diwaanu Ndakaaru looloo sabab démb daanaka ñu bëri bëgguñu woon jël sax bis Tata yi rawatina ligne 65 boobee ndax dañoo tiit si seenuk maanaam kaaraange Ndaraw Ambay bokk ci responsable chauffeur yi ak nag receveur yi mu ngay ci nguur gi mu taxawu liggéeykat yi ñu teewlu ay kàddoom dawuñu dawuñu dawuñu ñu doon ne ne di wax pour ñu jéem a gaaral ndax dafa am loo xam ne lii bu tolloo fenn fi si dëkk soo demee ba nar ci loru yenn loraange yi alalu àdduna lu mu ci manti doon lu ne bakkan ak gën a yamatuñ sax di taal oto yi dañ ciy boole fi mu ne nii di agressé di ñu si biir oto yi police wala gendarmerie lu mu ci manti doon xam nga lu mel noonu amoon na fi benn jamono si euh, jamono Abdou Diouf ku ñu mujjee dañoo mujjee jël gendarmerie soit que ñaar kenn taxaw si porte bi kenn taxaw si porte bi ñuy sécurité kii kon donc bu ñu defee defee noonu ba nit ñi man di dox seen i soxla yu demee noonu ba tey moom moo ñuy gën a ndax taxawaay amul amalul kenn njëriñ. voilà sa gaaru Thiel bu Colobane sax boo fa doxee terminus 65 euh, bu réseau AFTU chauffeur receveur ñoom ñëpp dañoo tiit si seenu kaaraange ñu ngay sàkk ci nguur gi mu yokk kaaraange ñi nga xam ne ñooy liggéeykat si bus Tata yi ba noppi askan wi ci boppam ñu dalal xeet seen xel ci yokkute kaaraange googee tiijan Diallo Mouhamed Diaw reportage. ginaaw bis bu ñu làq démb fale ca yarax responsable yi yor ligne 65 ca Colobane mujj nañu suspendre tey seen activité yi te loolu nag neexu leen ci li xew démb moo xaw a doy waar moo tax euh, tey sëfoor yu bëree bëri ñemewuñ mbaa boog ñi moom oto yi ñu wax seen sëfoor nañ gaare bañ xam 65 bi mu dal démb sax am na oto yi daw. égal kese moo ñu tey suba may xëy tey suba autoroute laa jaar tey suba maa njëkk a fii wala ñoo kar si yoon tey c' est loolu moo tax gars yi obligé ñëw di liggéey rek parce que ñëpp mënuñoo taxawandoo mais genn wàll gi yëpp liggéeyuñu. taxawa parce que ñoom ñu dugg duggal ñu tal sa oto te musiba la talal sa biir mën ngaa perte loolu laa mën a xam continuer yaay perte état état fàllewuñu. clients yi nag seen xel dalul depuis ñu gis mbir mu démb. mais doo nekk conscience tranquille de waaw vraiment wax dëgg yàlla ak dëkk bi nu mel nii dañuy xëy nii di dem di ñëw rek mais franchement nekkuñu en bonne sécurité la fale ca garage Colobane tata yu bëri tey dawuñu lu mel ni ligne 65 waaye am na yeneen ligne jot nañu daw comme 60 ak 75. xam nga ne bis yarax boobee ñu sànni cocktail molotov moo yokk li mug bis yi ñu yàq fii ci diwaan Ndakaaru tàll leen mat nañu ñeent waaye am na ya ñu caxat-caxatee mat nañu juróom fukk euh, directeur bi exploitation bu Cap Trans ñoom ci boppam euh, ñu ngay sàkku ci nguur gi mu wottu kaaraange liggéeykat yi moom Khadim Mbacke Dieng rawat muy liggéeykat yi nekk ci minibus Tata yi ñu teew lay kàddoom a Pape Man Tembo jàpp nañu romb na cinquante si toll nii si bis yoo xamante waaye yi ñu lakk moom nga xam ne moom yooyu moom leeral ñeent lañ sax boo gisee oto dafa am na gàllankoor yi ñoom heure bu ñu njëkk moom mooy mu assuré ñu sécurité boo xamante ni vraiment suñu matériel boobu ñuy bàyyi si ak suñu njaboot bi nga xam ne ñoo ko war a dinañ nekk nekk sécurité waaye loolu kese doyul yu mel nii bu amee ñu jël daw ba yu ay gaañu gaañu am si ay nit ñàkk seen bakkan ay nit aussi ñàkk seen alal état war na taxaw ñii ñooñu nga xam ne si ñàkk seen alal mu taxaw leen leen ba mën a continuer seen activité parce que day waruñu ñàkk seen alal rek jaaree sax ñàkk seen activité du rek diwaanu Ndakaaru lañu yàq ay bus tata sa Thiès ñetti minibus tata taal nañu leen loolee guddik euh, talaata la euh, jàpp mercredi sa commune bu cees Nord ñaar ci ay euh, oto yu nga xam ne dañoo stationné woon ca quartier Médina faal ñetteel ba ca benn buntu ko la ñu ko fekk gouverneur bu Thiès fëgg ci taabul ju ne loolee dafay dakk te nag ña def njombe loole bi yeboo ñu xam ne ñu ngi leen yi wër Alioune Badara Mbengue lay yoo gouverneur bu cees ñu teelu ko Pierre Claver Pouy Mbengue yàq sax bokk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 alors Simon ni ñu ko gisee président Macky Sall dànxaafu na jël na ay matukaay yokk na doole FDS yi di leen xamal ne man ngeen toll situation yoo xam ne man ngeen soxbal gouverneur bu Dakar gis nañ ni mu waxee mbir yi dafa mel ni nekkatul ay menaces rek de état moom fu mu nekk dafa tax gouverneur bu Thiès bu Thiès plutôt Alioune ñu leen di nuyu bu baax parce que administration bi également ñu ngi def liggéey bu mhm. am solo mais situation bi ñu toll nii ma mbay kilifa ñoom ñoo war a dalal suñu xel Hmm. njëkkee ko ci président de la république njëkkee ko ci ministre de l' intérieur njëkkee ko ci gouverneurs yi ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan yi ak ñi leen di jàppale ci liggéey bi di préfet ak sous préfet yi te ñoom je pense ñu ngi def seen liggéey euh, yokk góor góorgóorlu mais surtout gën a rassurer askan wi parce que ci jamono ji lépp luy kaaraange mi ngi seen loxo du du du du du du hasard bu fekkente ne ñenn ñi bëgg nañoo def manifestation préfet wala kilifa gi tere leen ko ne lii bu ngeen ko organiser mën na rax ba mu yëngal dëkk bi donc kaaraange gi quelque part mu ngi seen loxo mais une fois de plus mbiru bus yi gis nga Dakar cas bi fi xew a Yaraax Thiès ñu ngi ñuy woon ñetti bus yoo xam ne ñoom lañ fa lakk ñaar yoo xam ne mi ngi woon ci ab parking ak benn boo xam ne ca buntu këram xëy na chauffeur ba fa la dëkk wala borom bus ba fa la dëkk ñu lakk ko loolee ci lan la tegu selon des informations également ak Kaolack am na ñu ko fa doon jéem mais yëf yi antuwul te boo xoolee situation yi ñu traversé nii yëpp bus c'est pas la première fois à Yarax ñu njëkk ko attaqué ak cocktail molotov parce que gis nañu ay situation Kër Massar gis nañu ay situation xaw ma Thiaroye xaw ma Pikine ñoo xam ne euh, euh, passager yëpp wàcc nañu mais après ñu taal bus ba donc yëf yi warut a mën a jéggi dayoo nañ ko teel a dakkal ñi nga xam ne ñooy am projet yooyu di ko mbébét ba koo jëf nañu delloosiwaat seen xel ñu jàpp ne bus tata yi ñuy lakk ñun askan wi ñoo koy jël di doxi sunuy soxla su ma dee ñun askan wi mooy soxna si nga xam ne day dem marché peut-être nduggali këram muy secrétaire bi nga xam ne peut-être day dem liggéeyi muy policier walla gendarme walla ASP walla sax euh, agent pénitentiaire bi nga xam ne day dem liggéeyi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne sax ñu ngi ci administration bi mais tata lañuy jël. parce que actuellement nii saa yu situation amee Dakar dem dikk moom dañ koo tojo tojo toj ba lakk lakk lakk ba bu ñu déggee ne mbir amaana mën na xew rek ñoom ñu téye seen i bus garé donc lan la ñu desee muy Tata yi Tata yi c'est des sociétés privées yoo xam ne ay nit ñoo investir seen xaalis mais comme Dakar Dem Dikk nañ ko jàppee également comme patrimoine national parce que yii la ñu am pour doxi suñuy soxla le transport euh, de masse publique taxul mu demee noonu ñoom ñoo àngu affaire bi jël la relève pour mën a assurer justement le service public fi nga xam ne sooxe na foofe donc bu ñu leen dimbaliwul bu ñu leen yàqal mmh. ñi nga xam ne ñooy manifester nañu savoir raison garder parce que peut-être kilifa yi ñu bëgg a euh, merloo wala kilifa yi ñu mere ñoom ana ñi ciy jël tataay ñun ñoo koy jël ñun askan wi. ba pare bokk kook ñoom. donc nañu protéger li nga xam ne moom la ñu moom bañ a attaquer bus tataay parce que boo attaquer tataay attaquer woo euh, euh, euh, le pouvoir attaquer wo APR attaquer woo benn Bokk Yaakaar attaquer wo également opposition bi état bi nga attaquer te état système la saba au-delà de la personne du chef de l'État donc. na nit ñi également delloo si waat seen xel xam ne yii nii ñun ñoo koy jël sunu alal la ni ñu considéré Dakar dem dikk ma àbbu leen baat bi patrimoine national ñu jàpp également que tata yi ak yeneen système de transport yi fi ne également ñu considéré ko comme patrimoine national bu boobaa dinañu xam ne war ñu ko yàq. ñu bëri jàpp ne kon fu mu nekk nii nag lañuy ñuy xaar société civile bi nga xam ne daanul euh, rate benn yoon nguur gi ñu sóobu ñoom ci xeex bi ndax euh, dañ maanu ci mbir mi opposition bi également ñoom ñi nga xam ne daan ñu rate benn occasion ngir tiire mais ñu war a xam ne fu mu nekk nii askan wi xeex bi ñoom ci boppam ñoo ci war a jiitu. ah sa ah, waay ku ko defulit tamit sa mbokk nga jël tata yi. Mhm. sa mbokk nga ci transport de masse yi. ñu ngi ci car rapide ña nga ca njaganjaay yi ña nga ca clando yi. kon donc ñëpp a ci war a dugal seen loxo. amul ne opposition la amul ne euh, euh, société civile la xaj na peut-être euh, bëgguñu def dans la précipitation rek pour jóg pour wax mais c'est sur que ñoom ñëpp man gëm naa ne dinañ élever la voix quand même pour condamner li xew li et que woo nit ñi pour ñu gën a redoubler de vigilance et ça c'est tout à fait normal te loolu moom mooy yoon amul kenn koo xam te ne kii doo Sénégal dalaa ñor walla bakkanu doomu aadama yi ñor na la ba pare nga bëgg a taxaw ne doo kon condamné lii nga xam ne moom moo am kon donc boo ci rëccul it say mbokk kon donc ñun ñëpp dañoo am intérêt muy ci fànn goo mënti nekk ci segment wu société bi nu foo mënti féete nga taxaw pour lii nii nga mën ko xeex beneen bi mooy fa laay ambré ñi nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu moto jakarta yi parce ñoom. nañuy duut baaraam. daal di koy voté laata seen mandat bii ñu nekk nii di jeex muy atum 2024. que balaa décembre ñu daal di koy voté boobu ba nag dañuy wax ni mi ngi si procé mi ngi si processus bi. ginnaaw bi ko réewu Afrique sawu jant yu baree bari te bokk ci ñoom Gambie gi nga xam ne lu yàggul dara la ko woote Sénégal moom ba tey mi ngi traîner ngir woote lois bi ñeel accès universel ci wàllum information. tàggat yaram jàppale na kon Sénégal jàll na demi-finale ci Afrobasket jigéen ñi foofee sa euh, Kigali Rwanda démb ñoo dóor Cameroun juróom-ñett si juróom-ñaar fukk ak juróom revanche la depuis 2021 ñoom ñoo ñu dóoroon ci euh, ñetteelu place bi kon nag Sénégal dina jàkkaarloox Mali ci demi-finale ñaari équipe yi nag xamante nañu ndax nag jot nañu sax daal di ko euh, ci compétition bi bu ñu euh, tolloo ci poule C bi waaye nag waa Mali ñoo ñu dóoroon ndax bii revanche lay doon am lu mu ci manti doon it ndax dana yomb soxna Fall lañ ci yàndal beneen jongante ci diggante gaynde yu Sénégal yi ak aigle Mali yi mu di ñaareel bi yoon Sénégal mi amoon i jafe-jafe ci ndoxteelam taxoon mu am ñaari défaite amaat confiance am ndam ci kaw Égypte noppi ci moom jàll ci kaw Cameroun mu nekk ak yeewute waaye itam implication équipe bi yëpp ci noonu Mali bi nga xam ni mooy champion en titre nekk tam favori li mu tëgg gëtam rek mooy médaille d'or bi dina rek wéyal lu jëm ci wàllu démonstration collective am yi nga xam ne ñoo daanoon Sénégal ci ñaareelu bëccëg bi 72 à 49 dañuy bëgg rek dàbbali lu ñu mel moo tax nag gaynde yu Sénégal yi ñoo war a rek rester ci seen i garde noppi ci fànn yépp bu fekkee ne rek bëgg nañoo am ndam ngir yaakaar joué ji waat final boo xam ne moo leen mën a may ñu gagné fukk ak ñaareelu trophée ci wàllu afrobasket féminin ci jamono jooju Rwanda pays hôte bi nga xam ne doomu Sénégal bi di Cheikh Sarr moo leen di tàggat. qualifié na moom itam ci wàllu demi-finale daal di rek dëppandi kart gi ci kanamu Uganda muy lu njëkk ci wàllu histoire basket ci ñoom ci jamono jooju nag ñu war a daje ak Nigéria mi yooyu raaye gi moom itam dafa dëppandi kart gi ci kanamu Mozambique. Simon yaakaar de gu tas lañu amoon waaye fu mu nekk nii ñoo ngi taxaw de. non xëy na xëy na li ñu waxoon li sénégalais yu bari wax. Euh, moom la sunu gaynde yu jigéen ñi ci wàllu basket dégg parce que quand même il faut le rappeler dañoo njëkk a fakkastalu fakkastaluwaat Mozambique dóor leen Mali ñëw dóor leen ñaari but de différence fële Mali ñëw def 23 points de différence. Mhm. te Mali bi ñoom bi ñu ñëw ci compétition bi dañoo wax lu leer dañuy dem pour jëli pot bi. ñun Sénégal ñuy fakkastalu di fakkastalu ba sunu troisième match bi nga xam ne barrage la woon. Mhm. contre euh, hmm, euh, beneen équipe bi. Euh, Égypte Égypte ñu góorgóorlu am ndam ndam loolee nag moo ñu yokk ngóora ba xëy na gone yu jigéen ñi mën a fippu ba yegg ci fii parce que quart de finale bi également c'était pas bi daan yegg foofu. parce que dégg nañu entraîneur bi keroog. bi ñu génnee ci defetu li lan la waxoon équipe bii ma gis amuñu amuñu collectif. personnalité collective boo xam ne war na mën a tax ñu yegg quart de finale donc moom déjà découragé woon mais peut-être xëy na avec le recul on considère que xëy na xas la boo xam ne def na ko pour gone jigéen ñi mën a góorgóorlu mën a xam seen bopp. heureusement nag yàlla may na leen war nañoo jouer demi-finale mais contre kan contre Mali bi nga xam ne moo leen wulli woon te am na kenn ci ñoom ku ko wax ne Mali def leen a mbéjoon. Hmm. mbéj boobee nag. 28 points d'écart. non mbéj moom amaana dinañ ko mën a fayu en match bi tey 19 heures la ñu ngi leen di ñaanal ñu gagné mais boo xoolee les quatre yi nga xam ne tey ji ñoo yegg ci euh, demi final la carré d'as bu afrobasket féminin bi peut-être Sénégal moo ci xaw a doon surprise parce que deux premiers matchs yi ñu ñàkk Rwanda mi nga xam ne guleet mu yegg à ce stade parce que ñaari compétition yu mujjee yëpp Rwanda mi ngi nekkoon neuvième maanaam ci équipe yu mujjee mais bi ko Cheikh Sarr jëlee ba léegi Cheikh Sarr mii doomu Sénégal. Mhm. Rwanda woo ko waxtaan ak moom ba juboo parce que gis nañ ne yow résultat yi nga def Sénégal ñun kat dañoo bëgg nga nga ñëw fii defal ñu ko. Mhm. ñu dénk ko équipe bu góor ñi ak équipe bu jigéen ñi équipe national bien sur yu Rwanda. moom moo yeggale tey jii gone jigéen ñi foo xam ne Rwanda mosu fa yegg. di mhm. basket di nekk ci Afrique ba léegi donc boobu nekk euh, ñaar euh, beneen équipe bi. mu nekk Nigéria Nigéria mi nga xam ne moo jël pot bi ci jamono ji moom mooy le tenant du tiit Nigéria tam caaxaanul parce que comme moo yor pot bi dina woon gars yi ne jëloon naa ko bee paase mais du du du loo xam ne euh, euh, euh, dama ko lijjanti mën basket moo tax ma ma ma ma jël ko. Mali mi nga xam ne moom la Nigéria duma woon ba nangu pot bi yóbbu Mali moomu di vice champion Mali boobee également de taxaw tey jii ci kanamu Sénégal pour won ko ne man tam fi ma toll ci basket duma naa la benn yoon mën naa laa dumawaat ñaari yoon loolu nag la suñu gaynde yi war a war a war a war a ba parce que même Mali seen entraîneur reconnaître na ko ne ñoom seen yéene nekkul woon ñu waat ak Sénégal parce que léegi Sénégal non seulement xam na force ak faiblesse su Mali donc pour ñu njuuy waa Mali dafa yomb ñu gagné leen mais Sénégal au fur de la euh, au fur et mesure depuis seen défaite contre Mali am nañ fi ñaari victoire yoo xam ne ñoom dañoo gën a bénéficié euh, wu dañoo yëg seen bopp dañoo wóolu seen bopp te loolu nag boo ko defee ci compétition la plupart du temps mën nañ la gagné au départ mais boo dajawaatee ak équipe rek am ci moom ndam parce que boo fekk xam nga ko miin nga ko yow wóolu nga sa bopp. donc xëy na chance boobee bu ko Sénégal demee mën na yegg final final boo xam ne également Sénégal gëj na ko gagné mais malgré tout équipe nationale bu Sénégal gagné na 11 fois. Coupe d'Afrique bu mhm. basket en tout cas ci wàllu jigéen ñi ñu souhaité leen juste peut-être un douzième trophée pourquoi pas. Faf oui. Euh... match bu décisif lay doon bu metti d' autant plus que xam nga revanche lay doon pour le Sénégal maa ngi wax vingt huit mais c' est vingt neuf points d' nañ ñu gagné contre bien sûr euh, waa Mali léegi maintenant je crois il faudrait que quand même expérience bi servir leen dara d' abord beneen bi moo di ne ci rebond yi au moins suñuy pivot yi aussi ñu ànd ak lucidité et puis yu ñu moytu faute yu bëri parce que boo xoolee contre Mali li ci ëpp lu ñu gën a sonal mooy faute yu ñu doon def yi et ku ñuy wax lu ñoom oui Sika Koné Sika Koné moom la pratiquement moom dafa mën lancer franc donc mhm. yooyu nag faute yooyu il faut ñu éviter ko jéem ko jëm ko museler de telle sort que quand même du mën pour mën a jouer pour mën di def ñu def faute ci kawam mën quand même du ñu sonal ci lancer franc je crois loolu bu ñu ko defee on peut venir justement à bout de cette euh, équipe malienne en tout cas ay jàmbaar nañ fii ñëpp taxawoon nañ fii ne ne nag ay màgget nañ <laughs> depuis boobu gis nañ ne dañoo rëbbi féewu eh, foog naa ne nag loolu am na ci solo waaye dase nañu ay ngalaju ba léegi en tout cas au est de tout cœur ak ñoom ñu ngi leen encouragé bu baax te gëm naa ne bu ñu góor góorloo war nañ ci mën a génn pour dem final